artistes yii <laughs> ma leen xamal. <laughs> parlons d'autre chose. kee ma nga fee super Bakaye Mbaye day wax. suñu papa jooju nga xam ne ni euh, moom tamit gannaaw ko bu muy def émission bi nga xam ne ni moo koy defee ci seen boobu di euh, Bantamba donc tamit. à chaque fois buy waaye tëj day joxe lépp li nga xam ni ay leçons de vie si ci société bi war doo des fois ci wax xalaatam Euh, bii nag euh, ñoo ngi doon gis barki démb kii di président Diomaye a fay di waxaal benn xar ba fay sax lu tolloog euh, cent soixante mille francs ba parti da commencé naan képp kuy jënd xar na yem cent soixante mille cent soixante mille francs Père Bécaye nag moom yëkk na si ay kàddoom moom jàpp na ni maanaam di jënd ay xar soixante cent soixante mille gónduwuñu donc wax jooju nag peut-être am na ñu koy déggee positivement mais am ñoo xam ne Sénégal am na ñu koy déggee négativement donc moom lan la si jublu dañ ko dem déglu exactement daal di ñëwaat ci plateau bi ñu gën ko faram fàccee gën ko waxtaanee ci plateau bi ak nga xam ne nii moom mooy Nana Ousmane. Eh, ñun yooyu ñun yooyu góndi wunu waaw yooyu président dama nga jënd ci xar yi jox ca militants yi doomu Sénégal yi région boo dem ay borom kër nga fa ñoo xam ne amuñu xarum tabaski te loolu wàññiwu neen dara. ah bu leen yàlla tere leen. da mu ngi commencé social de. Ah? recevoir jënd leen xar yi nag fii ak dimanche parce que bari na ñu doon ànd ak yéen te xar jënd leen xar yi jox leen ko te booy largué nañu ay xeer ba sonn ah <laughs> loolu ñoom ak yi kon na ngeen jënd ci xar yi. jox leen jox gaa yi ñu tabaski. loolu ci social la bokk. ne fii di jënd ay xaru cent soixante cinq mille ñun yooyu ñun yooyu góndi waaw yooyu président. alors euh, di ngeen ko nañ jël xale jox xale ndax ndax bu tabaski donc waaye cent soixante mille di jël ay xaar cent soixante mille gën maanaam góndiwu leen père Bakaye boo xam kii la góndiwuñ sa thème yooyu utilisé. kan moo jënd xaru cent soixante mille. waaye président Diomaye buy waxaale xar dinaa la wax. Ah, boobu de maa mën waa waat ni jarul cent soixante mille. non xar moom xam nañ zéro cent soixante mille. waaw mu ngi noonu nag kon bu ñu gëm loolu amul it. donc voilà moo tax keroog ma ni euh, prési peut-être président Diomaye mu defee erreur moom moo avant muy nekk président waroon na xam carrément ne xar mi mënu jël cent soixante mm. ndax marketing loon def wala communication loon def je ne yi bëri jàpp nañ ni fekkoon ñoom la xar boobu kenn dinañ ko jaay cent soixante mille Fatima Diouf ñoo ngi nuyu bu baax baax yow ki nga xam ni mooy Oumy Coulibaly Bali Bali yee eh, borom Mauritanie allo Ousse. waaw dafa am ñaari mu waxee rek loolu dañuy dañuy dañuy dañuy bàyyi xel xam nga mu mu nee naa la tant que Sénégal ñun booy xool nanaa keroog waxoon naa ko man la ñun dëgguñ benn pas bi ñu dëggee benn pas ba léegi dëggaataguñ beneen pas booy xool daaw ak daaw jég yi ñu doon wax ñun moom la ñuy waxaat ba léegi parce que avancé wuñ mm-hmm. xam nga loo ko waral moomoo nañ bàyyi lu ñëw ñu politiqué ko mm-hmm. Sénégal faaw ñu bàyyi. lu ñëw ñu politiquer ko politique. politique moo doole quoi lu ñëw ñu dugg mais Bécaye Mbaye Bécaye Mbaye la mm-hmm. chaque jour buy def émission bay tàggoo day joxe leçon mm-hmm. mu mun nañ wax ni sax rubrique la. Mm-hmm. Bécaye Mbaye musul wax ci yu bari père Bécaye Mbaye père Bécaye man bu ma neexee ma ne ko Bécaye mbay parce que dama ko ay maanaam ah. borom baax la. Ah. te dama koy dama koy takkine man naturellement parce que doom sama xarit la. nekk États-Unis Matar Mbaye dañoo defandoo lépp sama waay la. Modou Mbaye Dramé Sow bu ma neexee ma ne ko Bécaye mbay te Bécaye sax lay dégg fils yow comprendre nga amul xalaat. yaa comprendre nañuy bàyyi xel yu bëri buñ politique. Bécaye yàgg naa wax ku ci nekk lim la arrangé nga ni cey père ak a ñeme dëgg. bu la arrangé waaw bu la arrangé nga ne kaf non nday yàpp pour lan Sénégal seetlu nga dara nit ñi buy àndeek yow benn mbir nga àndeek yow ñu jéppi la mooy nanaa toog na trois mois dégguma ko toog na trois mois dégguma yàlla dogal ñu tase rek pour lan woowam pour lan woowam mhm. te pourtant yow it woowoo ko dëgg la dëgg la de pourtant yow it woowoo ko ah. xamoo ci li ci kaw. xamoo yow it yow it yow it ci lu mu nekk ah. waxaatal waxaatal ay ay nangam sangam maanaam maanaam. Baye dégg naa da nga doon xew démb te yëguma ko te moom xew na trois fois yëgoo ko. billaahi. xew na trois fois yëgoo ko yëgalu la yëgalu la yow nga def maanaam <laughs> bëgg ko kaas léegi pour lan mais pour lan Bécaye Mbaye warul wax ni ko lii góondi wunu mm. ba pare reetaan nañ déglu fi Bécaye Mbaye waxee ba pare ku ci nekk nag di nga tal am nga ci droit mhm. mooy lan benn man d'accord ma de ndax xaar bañ naan cent soixante mille jaru ko ñun duñ ay dof moom moo jaru ko won li nga xamante ni moom lañ bëgg gis xam ñun kan la doon arrangé nga fexe teel sax gaa jaru ko wala dafa ëpp sa cent soixante ëpp na ko xaar ma ëpp na ko jaru cent soixante mille moo jaru ko la sax ëpp na ko. waaw dëgg la nañ waxante dëgg nañu waxante dëgg. yaa ngi comprendre léegi nag Bécaye Mbaye di wax ne yii gondi wuñu dëgg la gondi xam nga lu tax gondi wuñu mm-hmm. yow nga jënd xaru cent soixante mille te ñun amuñ xaru cent mille. wallaahi gondi wuñu. dëgg la. waxante dëgg moom moo gondi mm-hmm. xam nga lu tax it gondi wuñu ku nekk ak fa nga bëgg a gisee li tax Bécaye it ne gondi moom am na xaram. bidon bi bi nee di ko génne di ko dugal man maa bëgg a de génne ak dugal. yaa ngi déglu léegi Bécaye Mbaye xam nga Bécaye Mbaye xar moom yoonam nekku ci ndax xam nga lu tax Bécaye Mbaye yarkatu xar la. ay doomam yarkatu xar leen. Mm-hmm. même bu dul loolu sax bu bëggee xar jënd ko. baara. doomam moo dàqa yar xar ci àdduna. macha moo yari xaram baara. Mm-hmm. kon maanaam li may li may li may wax xam naa ko tur laa tudd mu ne dem leen ci dëkk yi mhm. bëri na fay njaboot yoo xamante am te xale yi xeex nañ ba sonn. waaw largué nañ police yi ay xeex ba sonn reetaan. waaw waaw loolu li ko waral maanaam maanaam man man eh, firnde rek boo xamante ni bàyyi xel jeunesse bi. Mhm. xam nga lu tax euh, jeunesse bi nga jël. Mhm. taxaw di suñu président. taxaw xar mu toll noonu. nga téye ko ne cent soixante mille laa ko jënd barki Serigne Touba booy sañ nañ dem ñu jël xaar ba foofu ne cent soixante mille. waaw al booy ko nee parce que suñ président weesoo ko te xar mu mel nii la am yaa ko influencé loolu. dëgg la. influence boobu yaa ko def. Mhm. wala bi nga jëndee xar jëndal li nga jëndee. Mhm. nga dem parce que parce que président yàgg nañ dem ci ay ay ay kii di jënd xar. mais ñu def. loolu du benn xam nga ñun dañuy dégg tel rek des fois ne damm na. Mhm. Mhm. vidéo bi dañ koo teg waaye na ko deux cent mille la koy la laa koy jaayee. Mhm. mu ko non man cent soixante mille laa am. maanaam discussion yi foofu la yam ba léegi dégguñu waaj na ko jëlal. fan la fayee prix donc voilà. waaw jë jël na moomoo. jël na eh, jël na galo yaa sunu waay leen tourné naa fa tourné naa jël na taxawal rek moom moom buñ ma yow yow ma ah, ma ma maanaam loolu loolu la ñu présenté xam nga tax ñu euh, a euh, <laughs> ah, tëgg bàyyi ma pare kon daaneel <laughs> ral ki ki sambal ki ndal cul tëgg naa daaneelal ah, ma daaneel alors <laughs> booy waxee mooy gis ñu exactement mu ni xaar mi cent soixante laa ko jëndee d' accord. da waxaale. da doon waxaale comme tous les sénégalais donc xaar bi peut être mën na ko jëndee deux cent mille. Mhm. comme ni ko Galaye waxee woon. Mhm. Euh, beneen bi tamit d' accord fu may fu may peut être ku génnee vidéo bi ma waroon continuer vidéo vidéo bi jeex. Mhm. fu nga xamee discussion du am ñëpp dañu xam ne kat président cent soixante mille. lay jaay xaram wala jëlul cent soixante mille. waaw donc nag waaye nag. gis nga xar xar bu jaroon bu moom sañ na waxaale na dërëm laa am comme tous les waaw waaw. ma waaw ñëwal. nice. mais kon bul ñu may lu ñu waxee. voilà comment. non mais du moom waajuram. waaw moom moom sax rek. jegelee tax mu filmer président la. mais mën na bokk si. mën na mën na sax bañ leen a jege. noo rëy ni taxawal waaw waaw waa rëy ni waaw taxawal. je te donne un bu ma ne jege leen. du ah, ah, ah, jege leen bu jege leen mu mel ni comme dama ne kii Pastef la bokk wala ñoom la àndal. voilà kon fa ngay waxee dafa nekkoon ci lieu ba. voilà yéen comprendre dégg rek. loolu li ma xam naa ko dafa nekkoon ci lieu ba. te hmm. président nag yenn jege boo ko jegee. Hmm. ay sécurité nga fa. Hmm. doo n'importe kii te bu leen yàqoon sa vidéo mhm. parce que nag ñun ay dof. ñun ñii. Mhm. tourné nañ fa. Mhm. ma leen di jaar bu baax a baax waa SPP. tourné naa fa ak saa neex. ñun jour bi fa Macky sàll di ñëw. eh ñuy tourné dañ dañoo jël ak suñuy bagage tegee ñu nale ñu dem ci pharmacie zona bi booy xool fa lañ toog man Zozo Sané ak ñoom Bousso ñun fa lañ toog. ñoom ñu concentré wu ci li ñuy def dañu fa jële yaa ngi déglu te loolu yi c'est normal parce que duñ n'importe qui ma ni lenn laa ci yokkaat nga jël mooy Bécaye mbay mm-hmm. li wax ko ne xale yaa ngi nii bu dee ñun. ñun ñun ah, xar baa ngi nii. waaw gis nga. ah lii jar na cent soixante mille kat. lii ëpp na cent soixante mille. jar na ko. gis nga déglu ma wax la. yow yow kii xamul xam taxawal mu may indi wax sax fii taxawal moom jaral na ko taxawal man man ma ñëw ci li may waxtaan parce que kii moom. barke yàlla jaral na ñeneen jaral yow comprendre sax. garaaw baax baax déglu wax dama def noonu xar jaral na ko 160 jaral na kay. man laa jaral na ma ko. dëgg la xar nga demee kay bu la ko jaayee 160. di nga di boo ah, jëlul xam 200 sax nga jël. wuy ma fii ndànk rek ndànk ma i Bécaye Mbaye ci beneen concept bi mu waxee ay xale son la bu dee gone yi tamit dañuy xaar ñu jox leen di dineen de waaw président bi nekk fi di joxel kenn xar mbaa ginaar mbaa ndox ngay naan xam nga luñ ko dénk. réew Sénégal boo joxee nanaa di nga ma jox de. ah boo joxee moo di nga jox keneen de. Ah, par force kon moom xam nga luñ ko sant. Mm-hmm. mu fukki mu fukki suñu dëkk bi merci. mu focus ci suñ dëkk bi ñu liggéey ci jàmm ak salaam waaye yéen it boo ji ñi ma ko sañ a wax liggéey leen. ngeen mënal seen bopp te li si bopp dangaa tudd waali daaw dafa diggoon daaw dafa diggoon journaliste yi xar. daaw dafa diggoon journaliste yi xar. dige bor la. ñàkk koo def. du waali de wor la. léegi nag comme du waali na dégg sama wax ji. daaw journaliste dañ fa dem. Ousse mm. Ousse ngir yàlla Ousse Ousse Ousse s'il te plaît ñu wax waxi xar. Ousse Omoro jug. ne ko ren wees na. mais Ousse waaye déwén. alors nangam sàng dama ne amul alors. Ah, wax ah. ca wax ja gis nga euh, journaliste yi. wuy ma Cheikh Ba ñu baax a baax eh, euh, ñu ngi lay a baax journaliste yi journaliste yi laa wax journaliste yi sax maa ngi jégalu li ma naan journaliste yi. presse bi laa wax presse bi alors. presse bi euh, am nañ jom Omar Samb am nañ fulla am nañ fayda ay liggéeykat leen kenn saxalu leen leen bi ngeen leen doon wax da ngeen leen di jox xar ñu leen ko yéen yéen a leen ko wax bi ngeen xamee ni bu ngeen ko waxee du ngeen ko def ngeen bañ leen ko wax ndax ñoom am nañ fulla am nañ fedd ñu ngi dimbal la ndey di dimbali baay nekk ci presse bi di góorgóorlu te kenn mosu leen dégg ci dara te ñoom ñu ngi dégg lu ne nag. mais mm. te lu ngeen xam rek. ñoom ñoo leen ko xamal lu dëkk bi xam ñoom ñoo leen ko xamal te ñu ngi dégg lu ne ñu ngi leen di saaga ñu ngi leen di tuumaal ñu ngi leen di wax lu ne te teewul ñu ngi focus nekk ci li ñu nekk toog alors parlons d'autre chose nit ki loo diggee na nga bi nga xam ni Père Bakay def waaw mais Ousmane a tout dit ah Ousmane a tout donc euh, président mënul jël chacun des Sénégalais <coughs> di leen jox xar loolu moom c'est impossible lenn daal la ñu mënoon muy tabaski gi ñëw ñu fexe ba xar yi yomb Mm-hmm. parce que bu bu euh, ngooñ meeg ripaas beeg yooyu yëpp yombee courant beeg ndox bi yomb xëy na euh, xar yi dina mën a yomb ci euh, chacun des sénégalais mais nag mënuñu kër gu nekk ñu ñu dugg fa di joxe bopp xar loolu moom c'est impossible mais nag comme ni ñu koy waxee kenn ku ci nekk am nga droit wax li nga sentir Père mbay Mbaye ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax xëy na moom yéene la yéene la bu mu am. Mhm. et bu sañoon euh, sénégalais yi kenn du ci jàmbat ni man aw ma xar. Mhm. parce que euh, tabaski day jot moomoo nga gis ñoo xamante ni dañuy dugg ci kër yi. Mhm. naan may leen ma lu ma yóbbu sama waa kër am ci ñoo xamante ni loo leen jox ñu ngi profité di ko yóbbul seeni waa kër parce que amuñu njëgu xar. amuñu xar amuñu lu ñu toggal seeni waa kër donc. xëy na yéene la bu mu waxee moom père Bécaye Mbaye et que c'est à saluer mm-hmm. parce que bu porteur de voix yépp doon toog di wax ne sénégalais yi dañoo war dañ leen a war a defal nangam dañ leen a war a war a waxal nangam dina bari ñoo xamante ni dinañ leen sant mais aussi dina bari ñoo xamante ni seeni saaf seeni euh, jàngoro dina saafaraw mm-hmm. donc wax dëgg yàlla ñu ngi koy saluer bu baax a baax a baax waaye nag mbëbëtam xëy na loolu dafay firnde moom mm-hmm. moom su amoon lu mu lu mu joxe ñëpp xar sénégalais mmh. yëpp dina ko def à la place du président mmh. donc nañu ko xoolee ci côté bu positif mmh. mais pas di ko négativité di ko di ko di ko def euh, nan lañ ko sax di ko di ko euh, négativité noonu la di ko di ko di ko di ko di ko ñaawal voilà non dama bëgg mu olofe di ko ñaawal olofe na négativité négativité tul olofe na <laughs> alors PBK donc di di ñu bañ parce que man gisuma fi lenn lu ñaaw voilà man man gisuma dara lu ñaaw ci li mu wax mm. euh, xëy na xale yi doon nañ la xeexal xale yi doon nañ la nangam xëy na ñu ngi xaar tabaski bi wala màggalu Tuubaa ñu wàññi leneen ak leneen loo xamante ne dina yombal affaire parce que ñu ngi ci yoon wi état sax état ci boppam état ci mm-hmm. boppam di def social daa baax effectivement dañ ci maanaam parce que effectivement mu mu mi defkatu mm-hmm. social la dafa yorut rek mm-hmm. xolam yëpp social la nit mais lu mu defee social man mii wax dëgg fa yàlla. man man defuma social. mais maa ngi ndax maa ngi ànd ak maa ngi ànd ak ñuy def social ñàkk koo yor tam man kuy def social boo wootee ma jóg jàppale la nekk ca ji jël bagage yi teg ci suuf parce que <laughs> pour am ci yoon bi parce que yéene naa <laughs> loolu la rek. wala maa ngi social def maa ngi nii aw ma. wala bëgg. sama portable laa bëgg jaay fu mu toll nii portable. lii de 15000 du jar. bon lii kenn kenn ko bëgg doo réglé. set bu set bi paase. set bu juutu bi doo ko jaay alors bu ñu paree foofu dañuy bi nga xam ne moom tamit dañu ko waxtaanee alors. ki nga xam ne Bijou eh, Ngoné la ak ki nga xam ne nii mooy Oustaz Modou Fall gannaaw Oustaz Modou Fall bu mu génnee teg. place xale jigéen ñi seen place mu leen teg seen